salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen wa sallallahu wa sallam ala wa alihi wa sahbi ajmain ñu leen di fay nuyoo di nuyu waa réew mi di nuyu ñëpp di nuyu waa Dakar People di wax ni yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit incha allah. balaa ñoo tàmm ci xam kan mooy oustaz Oumar Sall ba pare. daanaka weesul comme li ma waxoon ñeneen ñi rek. Oumar Sall daal kenn la koo xamante ne ab jaamu yàlla bu bu néew pexe bu néew kàttan bu néew xam-xam. Hmm, juddu ci ñaari wayjur yu néew doole muy Ahmad Sall ak May Saw ñoom ñooy sumay waajur mu ngi juddoo ñett mbaar hmm. uh, màggee caaro yi daanaka caaroy la yoroo kooku mooy Oustaz Oumar mm-hmm. mm-hmm. mais Oustaz dañoo bëgg a waxtaan yow ci dina temps yi fi xew temps yi mooy Tijaan ak Ñaseen yi li fi xew boobu diggante ak am ak kii Ahmed Khalifa Niass mu fi waxoon loolu yëpp mais moom jégalu nag léegi yow bañ jàngal ci am ci ñaar ñooy noonu jaxasoo bu baax. alhamdulilah rabbil alamin euh, jaxasoo boobu am ni ci wàllu këru diine yi mm-hmm. loolu du dañ di am xëy na dañu koy nëpp waxtaanee ko ci suuf. moom it wax dëgg yàlla nag euh, def na lu rafet nit bu defee njuumte taxaw ne baal ma très sérieusement am na ngandikër maanaam borom xol bu bu yaatu la ndax kilifa bu toll yi moom su nangoo wàccee boppam ni mi ngi jéggalu donte gisul ni juum na waaye nangu na ni mi ngi jéggalu su gisee ni juum na mi ngi jéggalu kon kooku ñëpp dañu koy jéggal te rafet ci moom njort ndax jullit la kenn la ci kilifa diine yi nag ndax ci la bokk ci këru diine yi la bokk kon su pekkee jéggu na ala kulli li ma bëgg a wax mooy këru diine yi moom euh, jaxasoo yi ci am toujours yu mel nii moo koy indi yi koy indi mooy bu fekkee dañoo bëgg wax ci histoire dëkk nga xamante ne kenn ku nekk am na li mu def bu ñu bëggee waxal ñii bàyyil ñii yëkkati ñi suufeel ñii kooku day indi problème te du taxit ñu xam histoire senegal ndax ka koy bind day am li muy moytu ña koy dégg dafa am na ñu koy déggee ndax ña koy dégg dafa am fu ñu féete. kenn ku nekk bu ñu waxee ci sa sëriñ lu la neexul dootoo xool ndax dëgg la wala déet mais da ngay xool ndax dañu ko suufeel wala dañ koo wàcce yu mel noonu nag feek mi ngi bëri rek mooy jubóo du am loolu moom moo nekk entre ahlu sunna ak suufiya tamit bu yàgg ba léegi loolu fi ne parce que li ko indi mooy euh, dañoo am fu ñu wuute fi ñuy wuute mooy ci jëlin yi lañuy ñuy wuutee déggin yi dañ cee wuute su ko defee kii dafa gis ne moom yonent bi lay topp sallallahu alayhi wa sallam jëlee ci moom du jëlee ci keneen kee dafa gis ni moom maamam lay topp wala ku maamam toppoon lay topp kon lu mel noonu moom mooy am moo tax yu mel noonu bu amee rek toujours ni dafay daal di am incha allah rabbi mais laaj la ba en tant que nit. Mm-hmm. en tant que nit. Mm-hmm. mun na baalu àq bu fekkee dafa tooñ. waaye en tant que professeur de l'histoire nga xamante ni moom li mu wax lu ko xam-xam jox la te mu mën koo firndeel su ko neexee mën naa bañ a jéggalu waaye nag dëkk bi dafa toll foo xamante ni moom mu wàcce boppam jéggalu moo gën a moyen gën a yomb ko yeneen jéggalu ndax maa ngi dégg wax yoo xamante ni ñii nee nañ dafa féete kër gi moo tax mu waxee fa bu fekkee kër gi ñu wax fa la féete te wax ji yëg ëpp ci kër ga mu wax kon su boobaa dañ naan dafa far dootuñu gis beneen li ma bëggoon a xam daal mooy bu fekkoon historien yi ñoom ñoo taxaw contredire ko weddi ko su boobaa loolu moom na xam ne juum na waaye bu dee ay taalibe nag ak ay ñuy mer rek ak ñuy faral seeni mbokk moom loolu gisuma ne loolu jar na ko waaye nag pour bëgg apaiser ak jàmm nag bu ko neexee na jéggal incha allah bi